mbokk yi dal leen ak jàmm diwaanu Louga xaw tuut ay am fa ubbil yéenekaay bi di source a mu ngi ñuy nettali naan moom kay dañoo échappé dëgg li ñuy wax horreur ginnaaw ab mbir mu doy waar moo xamante ni bii benn maçon mu ngi ko doon jiin si benn xale boo xam ne ay atam mu ngi toll si fukk ak benn mu ngi naan da koo naxee si téléphone portable moom moomee di maçon ba fexe ba dugal gone googe si biir tabax yu yeggul ya takk ko ba mu ne kodd wut ay xotti biteel na doon tàggale bopp ba ak baat ba maanaam da koo bëggoon a faat ginnaaw bu muy jéem a def jëf ju ñaaw jooju nag sala ko yeneen moroomu ouvrier am fekk sa biir tabax ba gantal ay pexeem di mbir mu yéeme boo xam ne source a dikkee na ko vox populi moom xëy jox kàddu ki nga xam ne moo di professeur Bac Bakary Samb directeur bu Tumbuktu institut moom mu ngay artu bu baax baax dëkk yi nga xamante ni bii ñoo fare si code yi ndaxte jubluwaayu terroriste yi bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom du Burkina Faso ak di dëkk yu ni mel waaye si code yi la Sud Quotidien naan réewum Sénégal ak réewum Guinée kay bu ñu sukkandikoo si kàddu yu Bakary Samb ñoom ñu ngi si code rouge dëgg si wàllum euh, terrorisme las yéeni kay moom del siwaat si ñi nga xamante ni bii ñoo di ay daw làqu yoo xam ne ñoo jóge woon si diwaanu Mauritanie ñëw fii si réewum Sénégal fanweeri at a ngi nii mu ngi naan ñu ngi nekk ci misère dëgg maanaam nekk ci njàqare yoo xam te ni bii tax na yéenekaay bi def ci ab gëstu bu yaatu boo xam ne jagleel na leen ko jox leen kàddu gi ñoom ñooñee di daw làqu yi nekk fii ci réewum Sénégal ci jafe-jafe yi ñuy dund ak bëgg gu ñu bëgg delluwaat seenub dëkk donte am nañ fii lu jege fanweeri at des ci laas yéenekaay xët wu njëkkam daanaka la fa fës moo fës yeneen xët wu njëkk yéenekaay yépp moo di doxub ñaxtu bi nga xam ne am na ci réewum Sénégal ni ki démb foofu ci place de la nation ak collectif ñoo lànk ñoo beñ ñoom ñi nga xam bii ñu ngi doon dox ñax ñaxtu nag ngir yokkuteb courant bi waaye tamit ngir ñu teggi loxo Guy Marius Sagna ak ay ñooñam yi nga xam ne teg nañ leen loxo ginnaaw bi nga xamante ne bi ñoom it doon nañ dox ñaxtu si moomu la mbir las yéen kay naan dox ñaxtu boobee kay mbooloo mu takkoo takku la gis ko Quotidien di ko feelu naan moom kay réussir nañu lu ñuy wax pari de la mobilisation tax collectif bii di ñoo lànk nag défier bu baax a baax ki nga xam ne moo di président Macky Sall. la turbine naan avalanche humaine dëgg kay moo am foofu sa place de la nation maanaam mbooloo mu takkoo takku moo xam ne mënee su ko lim. bëri nañu lool di ñaxtu di ñaawlu bu baax a baax ni nga xamante ni bii noonu la ñu yokkee courant bi ak teg teg loxo way ñaxtukat yi nga xamante ni bii jamono ji ñu ngi si kaso bi jéego yi ñu nar a teg nag bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi bokk na si bañ a fay facture yi si weeru janvier joxe ultimatum ñi nga xam ne ñoo di régime bi maanaam appal leen daal di menacé bu baax a baax ne dàq ñu dox ba sa diwaanu pale ba bu fekkee ne seen bëgg-bëgg yooyu saafara wuñ ko mu ngi naan nag bi la doxu ñaxtu liñ ci gën a seetlu moo di mag ña bëri woon nañ ca lool waral enquête yenn kaay yi fësal si njëkk naan seigneurs yi kay dëgg ñoo nekk si ligne bu njëkk bi maanaam màggat yi nga xam te ni am nañ lu jege juróom benn fukki at jëm kaw am na ko si am lu toll si juróom-ñaar fukki at ak ñeent yoo xam ne mu ngi nekkoon sa marché ba di ñaxtu bu baax a baax si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund moo leen mag jafa nekkoon ñëpp ñoom it addu jëmale si menn mbir mi libération naan ñoo lànk kay amal nañu mobilisation bu takku waaye menacé bu baax a baax pouvoir bi ñu ngi naan bu ñu teggiwul loxo ki nga xam ne moo di Guy Marius Sagna alxames ajjuma ajjuma dinañ wàcc ci mbedd mi ba ñëpp dégg leen étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom ne dinañu dakkal njàng meek njàngale mi ci daaru yu kaw yi fekk teggiwuñu loxo docteur Babacar Diop Thiès it des ñu woon ginnaaw ci boobu la ñaxtu Vox Populi moom it des si boobu la ñaxtu naan waa collectif ñoo lànk nag ñu ngay menacé bu baax a baax ne nañu dox ba diwaanu palais fii ak juróom-ñaari fan bu fekkee ne président Macky Sall saafarawut seen i bëgg-bëgg teggi loxo Guy Marius Sagna ak ay ñoñam waaye tamit delluwaat ginnaaw si yokkuteem njëgum courant mi si boobu la jamono Le moom li ko soxal moo di lëkkaloo gi ñu waroon lëkkaloo si biir géej gi maanaam liaison maritime boo xam ne moo waroon a dox diggante Dakar Rufisque ak Saly nekkoon ab projet boo xamante ne bii jamonoy Abdoulaye Wade lañ ko naaloon waaye boobulee projet yenn kaay bi naan na tàbb na sa biir géej lu tolloog ñaari milliards ak juróom-ñetti millions naxasaay tàbbi sa biir géej ga juróomi baatu taxi yi nga xamante ne bii ñoom lañ ko jagleeloon ñu tas ko diggante Ndakaaru Foundiougne ak Saint-Louis kan Diallo mi fi nekkoon directeur général bu seek moom di expliquer bu baax a baax lu tax boobule projet ñu daan koy bàyyi naan dafa am ay nit yoo xamante ni bii ñoo demoon ci président Abdoulaye Wade naan ak bii projet boo moytu dinañu amaat beneen batalo Joola tax président de la république delloon ginnaaw si bi le projet jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yend ak jàmm